nekk meeru dëkkam. kon Aliou sàll du perte géejawaay su fekkonte ne alal mooy tax nit jot ci meeru dëkk kon ki nga xamante ni mooy Diouf Sarr du perte meeru Yoff perte meeru Dakar. kon moom Kolda bu ko falee def ko maire dafa jige population bi di jàppale président de la république te wu ci wax. beneen affaire bi mooy am na ci ay directeur ak ay ministres yoo xam ne jàppalewuñ Macky Sall am naa ci ay firnde te dinaa leen tudd. mooy ndax chaque chose en son temps non defal rek chaque chose en son temps am na ci ñoo xamante ni. ñi ngi ŋarale di jàppale opposition ñi ngi ŋarale di xool nu nguuru Macky Sall daanoo ñi ngi ŋarale may nañu Macky Sall dëgg ba mu nee sama troisième mandat wala damay demaat ak du ma demaat du ma ko teel wax ndax am na ñoo xam ne boo ko teelee wax duñu liggéey. Mhm. Macky Sall am na raison ci loolu mais président Macky Sall na xam ni am na ci ay nit ñoo xamante ni luwaayaaluñ man Mahfouz nanguwuma may toog ci der di jëw yàpp. président de la non dafa nag rek nañ seen bopp. te bu ci tudd en son temps. Mhm. dama leen di président Macky Sall mënu laa jox teraanga jox la privilège bu nekk. doo dem ci débat yi di ko di ko di ko défendre. président de la république mënu laa teral ngay jël ay militants yoo xamante ni war nga leen a jàppale te doo leen jàppale kon président Macky Sall ñun moom la ñu àndal képp ku koy xeex danañ la xeex ndax Macky Sall bu bàyyi woon politique suba ñu bàyyi politique ndax ñun politique defaluñu dara dañoo ànd ak moom ci dëgg ànd ak moom ci loyal ànd ak moom ci ni mu yoree réew mi neex ñu kenn du ko contesté ci bilan. tey Sonko mosoo dégg mu rafetlu benn bu Macky Sall def bu baax benn mosoo ko dégg pourtant ba mu demee palais proposition ba mu joxee ci Covid proposition boobu la Macky Sall def teraanga boobu nit defal la ko mosoo taxaw waxal ko benn bu baax kon xam nañ ni Macky Sall dafa mel ni dafa am moom beneen problème bu dul politique kon nañu ànd nekk benn jàppale président de la république mm-hmm. beneen mandat cinq bi ko fi dese incha allahu rabbi mu mu mu def ko ci jàmm bu ko defee ci jàmm ñu xool Benno Bokk Yaakaar ku ñu falaat parce que réew doo ko jox gone réew doo ko jox robel réew doo fekk koo xamante ni amul benn mentalité nga di ko jox lu dul dem ay suite ba te dimanche wu amul kenn koo xamante ni yow yaa ngi war a toog pour bind sa programme noo war a yore Sénégal defoo ko nit ñi foog sa guddi yaa ngi xalaat yaa ngi bind ndeke yow sa guddi yaa ngi dem di dàmpalu ji kon kooku kenn du ko bàyyi ak Sénégal yi nañu xam ni Macky Sall dañ koo fal. te ku yàlla yenn kenn mënulaa laa yenni di ndokkeel bëgg ko bëggul ku koy wax muy première dame Mahfouz boo demoon service la Sénégal ba ñu génneel la carnet yi nga xam ne yaa yaa ngi kii yaa ngi dóor mais def lu baax ak alxuraan ñooyam yaa ngi dóor non dóoruma ah, mais Mahfouz def lu baax ak alxuraan def lu baax ak alxuraan ñooyam ah, mais da ngay xool dafa am ñu ma yóbbante ñoo xam ne ay malaat lañ mu jël leen yóbbu leen Tunisie ñu am ay maladies chroniques yu garaaw mm. ñu faj leen di ko xool di ko gis di ko di ko wër boobaak léegi pour gis ko sant ko gërëm ko première dame ni leen yàllaa tax ma di ko def. Hmm. gis nga fi ay première dame yoo xam ne ay tubaab lañ buñ mësaana ñëw fi duñ lijjanti kenn. Hmm. pale bi boo si mësaana dugg wala nga jege ko ay xeeti eau sewel la daan xeeñ liñ daan yor seen bopp lañ koy def. mais ku ñëw ku ñëw nekk première dame uuf nit ñi di envoyé nit ñi ay ay ay ay transfert. Hmm. di jàppale nit